waaye war na nekk tamit moment boo xamante ni da ngeen di xalaat ci lu bëree bari léegi am naa sama bag lu ci topp bu njëkkoon boo amee sa bac da ngay toog xaar école euh, tijji wala université ñu orienté la nga jàngi mais fi mu toll nii mën nga tàmbali léegi nga commencé def recherche xool domaine bi nga gën a bëgg suivre sa passion bul topp gars yi naan la defal spécialité bi wala bi beneen bi xoolal bi nga xamante ni moom nga gën a bëgg bi la gën a neex bi nga passionné nga topp ko. su defee li ngay réussir.